santaane borom bi. wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu déglu di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq di leen baal àq. di ñëw ak yéen tey ci communiqué bi nga xam ni moom la opération Mur Say Cër di communiqué tey ji ci samedi ji 20 novembre 2021 communiqué bi nag li ko tax a jug mooy Miss Sénégal bi nga xam ni moom moo lëmbee jamono te xam ngeen ni opération Mur Say Cër noonu lay doxee association la boo xamante ni dafay wax lépp loo xamante ni actualité la waaye tamit dafay muur soxna yi nga xam ni dañoo bëgg a muuru te amuñu lu ñu muuroo wala xamuñu ko ñu jàngal leen ba ñu xam ko ba pare dafay dox tamit ci wàllu social di jàppale ñi nga xam ne dañoo muuru bu ñu amee ay problème communiqué bii nag tey ñu ngi koy jëmale ci lii lëmbe réew mi ñaari fan yi ak alxamis ba léegi muy mbirum miis Sénégal mu nekk mbir moo xamante ni dafa dañ koo gis nii ci kaw rek waaye ndekete am na leneen lu laxatu ci suuf muy ay jigéen yoo xam ne dañ koy organiser ngir bëgg siiw war a bëgg alal dem sax ba nga xam ne mbir mi li muy nurool mooy jaay xale yu jigéen yi ay innocente yoo xam ne xamuñu dara ñu daal leen di jaay am seen xaalis ñoom xale yu jigéen ñi daal di nekk ñoo xam ne dañuy mujj nekk ñoo xam ne dañuy souffrir te loolu nag xam ngeen ni mbokk yi nekk na mbir boo xam ne bu ñaaw la waa opération Mur say cër di ko ñaawlu di tàllal ay loxoom di woo jullit ñu jigéen ñi ñu delluwaat ci la leen yàlla santoon delluwaat ci suñuy aada ak suñuy cosaan ndax xam ngeen ni élection Miss Sénégal niñ koy doxe dofee ak ni mu tëddee di bokkut ak suñuy aada bokkut ak suñuy cosaan bokkut ak li nga xam ne moom lañu ñu diine sant diine li mu sant jigéen mooy mu muur ay cëram xale bu jigéen bi yaay ji képp koo xamante ni jigéen nga te majeur te am xel li la diine sant mooy nga muur sa cër boo demee sootu ahzab yàlla mi ngi fay wax subhanahu wa taala ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minin yudniina alayhinna min jalaabibihinna zalika adna ay yu'rafna fala yu'zayna wa kaana yow yonent bi yow waxal sa soxna yi yàlla yonent bi lay waxal sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal say soxna ak say doom yi jigéen ak jigéenu jullit ñi looloo ñu si boole nañuy muur seeni i cër wàcc seen jàllaabe yi ba mu paase seen dënn yi loolu de moo gën a yell moo gën a jekk pour ñu xàmmee leen ba kenn du leen lor zalika adna ay yuaraf na loolu moo gën a jekk ba ñu xàmmee leen jullit bu jigéen muuraay lañ koy xàmmee waaye du futteeku yàlla mu ne buñ ko defee day fa laay usay na kenn du leen lor du ñu am lor ci bët du ñu am lor ci làmmiñ mën nañoo mucc ci lor yu baree baree bari mu ne yàlla mu ne subhaanahu wa taala nag bu ngeen ko defee day wa kaana allahu ghafuran rahiman yàlla nekk na koo xam ne ku bëri ku mën a jéggale la waaye ku bëri yërmaande la moo tax ñi ngi woo jigéen ñëpp ci muuru ak suturaal seen bopp ndax ñu mun mucc ci lor yii si àdduna mun a mucc si lor yi nga xamante ne mooy alaaxira si loolu nag ñi ngi ñaan ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorités yi nekk senegal ñu dakkal lii nga xamante ni moom mooy Miss Sénégal ndax xam ngeen ni bëri na ay lor yu ci nekk bëri na ay tolof-tolof yoo xam ne mi ngi si si suñu doom yu jigéen yi kon ñu ngi ñaan ñu arrêté lu mel nii ñu euh, arrêté li nga xamante ne nii ay lor dong la ñi nga ñaan tamit ñu ubbi ay enquête ci lii xew nii ci suñu doom yu jigéen yi comme niñ ko doon ubbee ci yeneen xew-xew yi nga xam ni xëy na mës na fi jaar ñu ngi leen di ñaan ñu ubbi enquête ci yu mel noonu ndax xale yu jigéen ñi dañ leen a war a défendre doom yu jigéen ñi dañ leen a war a protéger dañ leen a war a aar ba duñu tàbbi ci li nga xamante ni mooy musiba bu rëy bii di Miss Sénégal loolu nag bu paasee mbokki jullit yi ñi ngi tàllal loxo suñu doom yi jigéen yëpp ak suñu yaay yi ak ñi nga xamante nii mooy suñu sœur yi ne nañu delluwaat ci borom bi subhaanahu wa nañu fàttaliku ne am na bis buy ñëw te du jaas bis boobu mooy dee bis boo xamante ne nii xamuñu tey la xamuñu suba la xamuñu ginnaaw suba la te yàgg-yàgg dafay ñëw te dañ ko war a waajal te buñ ca yeggee dinañ xam ni lépp dëgg la ni ko xale yi di waxee kon bis boobu bu jar a waajal la te maa ngi wax ni képp koo xam ne yaa ngi ci genre yii muy miss yi ñuy eh, organiser ak yu mel ni moom nekk ci futteeku bi di génn ci mbedd mi ak yaramu neen ni ñu ko réccoo ñi si dugg ku nekk dégg na xale yi ni ñu réccoo liñ ci duggee woon ba seen jàng yàqu seen àdduna yàqu waaye ku ci génnul tamit di nga réccu ëllëg yowmal xiyaam te récc googu sax mooy gën a foor mooy gën a metti mooy gën a danger récc bi nga xamante ni moom moo nekk fii ci àdduna kon ñu ngi leen di tàllal loxo di leen ñaan doom yu jigéen yi yéen ñëpp ak suñu yaay yeeg ñëpp nañu bàyyi li nga xamante ne mooy futteeku bi ak jaayu bi ci télévision yeeg tiktok yeeg yu mel noonu yëpp du dëgmal li nga xamante ni moom mooy alquran dëgmal li nga xamante ni mooy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem muuru cër yi daal di jaamu yàlla loolu mooy nga ñaay fii ci àdduna mooy nga ñaay fële ëllëg yowmal xiyaam islam moom bi mu ñëwee moom dafa aar jigéen da xam ngeen ni avant islam di ñëw fekkoon na jigéen ñu koy jaayee ko jënd ñu koy futti comme ñu koy futtee nii tey noonu lañ daan futtee jigéen di ko jaay ci marché yi kon nag ni ñu leen di aare mooy aar leen ñu toog ci biir kër yi aar leen ci làmmiñ aar leen ci bët jigéen boo ko bëggee aar doo ko futteekuloo mu génn ci mbedd mi ñëpp di ko xool bët yëpp di ko xool làmmiñ yëpp di ko tudd kon niñ koy aare mooy toogloo ko ca kër ga muuruloo ko comme ni ko yàlla subhaanahu wa taala sante santaane ndax yàlla boo xoolee ci aaya muraay bi mi ngi ciy wax ni zalika adna ay yoraf na falaa yu usay na baatu yu usay boobu dañuy lu mat a bàyyi xel la loolu moo gën a yell ñu xàmmee leen ñoom jigéen ñu jullit ñi mooy ñu muuru ba pare kenn du leen mën a lor duñu leen mën a lor ci làmmiñ duñu leen mën a lor ci bët duñu leen mën a lor si ay feebar duñu leen mën a lor si lenn ak jigéen bu muuru génn ci mbedd mi sécurité lay àndal bokkut ak ki futteeku génn ci mbedd mi kooku dafay nekk ci danger ci insécurité lay nekk kon nag bu fekkente ne ñu ñooñu nga xam ne ñooy jigéen ñooñu ñoo génn ñi génn bëggoon na dañuy aar seen mbokk jigéen jullit yu jigéen ñi maa ngi leen di ñaan li ñu leen war a aare mooy lan ñu togg leen leen ci kër ga ñaan tamit ñu dakkal lii di miis ba nga xamante ni dootu fi amati waaye tamit ñu ñaax leen ci ñu fegu ci seen comportement seen jëmm fegu ci li nga xamante ni moom mooy seen yar fegu ci li nga xamante ni moom mooy seen diine te teraangay jigéen ak tedd ngay jigéen du futteeku génn jigéen bu koo génn rek ñàkk na valeur am mais teraangaam ak tedd ngaam mooy toog ci biir kër ga wax ndànk comme ni ko yàlla waxee falaa taxdaana bil qawli fa yatmaa allazi fi qalbihi marad bu ngeen di wax sax bu leen wax ci kaw bëggul sax nga sonn ba nga xamante ni góoru jàmbur bi xolom feebar day dalay xemmem mu ne ñu dox ndànk wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama maa yuxfina min zinatihinna booy dox sax doxal ndànk yàlla mu ne bul dóor sa tànk sax ba góoru jàmbur bi da xam la nga nëbb ci sab taar kon kooku mooy aar jigéen muy islaam kon ñi ngi wax ni ñooñu nga xam ne dañuy jug taxaw ne dañuy aar jigéen ñi ngi wax leen ne ni ñuy aaree jigéen mooy fegal ko ba nga xamante ne nii dara du ko lor ci jëmmam waaye dara du ko lor ci li nga xamante ni moom mooy diineem yal nañu yàlla musal sàmmal ñu suñuy doom sàmmal nañu suñu njaboot gu jigéen ji daal di nag ñu sàkkuwaat beneen yoon balaa ñuy jeexal ci autorité yi ñu dakkal lii ubbi ci ay enquête daal di aar li nga xamante ni protéger mooy doom yi jigéen yi protéger leen ci yàqu-yàqu yi ak mbon gi lii mooy li nga xamante ni moom la waa opération Mor Say Thieur indi woon tey di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm defal leen sutura defal leen teraanga àdduna ak alaaxira aqulu ma tasmaun wastaghfirullaha lii wa lakum fastaghfiruhu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.